Euh, c'est bien vrai que à maison aussi papa yaay dina def li mu war <coughs> mais tamit nit di nga dem ba am sëriñ mu lay fàttali leneen mm-hmm. euh, parce que dañ naan nit ku nekk war nga am sëriñ te sëriñ mooy koo xam ni dalay lay fàttali jàll mm-hmm. euh, fàttali la ay julli ak yi nga xam ni moo baax mm-hmm. fàttali lu bon Cheikh Mamadou Issa day wax souvent nit da ngay jàpp ñaar fàtte ñaar ñaar yi ngay jàpp mooy lan nit su la defalee lu baax danga koy jàpp fàttaliku ko. dëgg la. nit dangay fàttaliku dee. ñaar yi nga war a fàtte mooy fàtteel lu la nit def ci lu bon fàtteel lu baax loo defal nit. donc c'est des chose yoo xam ni. tënk na euh, àddina. kilifa yi waaw loolu rek boo ci tënkoo rek euh, dina change lu bëri. voilà kon nag euh, ñu wax nag ci li nga xamante ni nag tey dafa dafa nekk sujet bu doy waar. parce que ñi nga xamante ni euh, ñoo war a servir euh, sévir muy état bi waaw du ma ne sax président parce que boo nee état ñu ne président Macky Sall mais je rappelle juste que le président am na ñoo xam ne ñoom la fi teg ngir ñuy doxal kon sanction dafa am ñoo xam ne seen liggéey la ñan ñoo war a sanctionner parce que mënuñu wax indiscipline te quand xale ñëpp xam nañu Serigne sax laay wax fi fu mu tegoon xale yi. parce que tudd yàlla sax dafay sori mais képp kuy nit ku baax danaan la fonkal xale bëggal xale ñun Sénégal dañoo dem ba euh, euh, ci sama xalaat bu gàtt mendicité dafa dem ba mel ni maanaam lu normal da ngay bàyyi sa doom di ko toppatoo mais nga gis xale yenn saay mu fatt la sax ndax seen yalwaan gu metti gi nga dàq ko nga jaani ko mais des fois tellement qu'ils sont nombreux da ngay saraxe ba ruus yenn saay nday dagguma la sax de. benn xale. Mm-hmm. il est presque 22 heures demal nga tëdd léegi bi may ñëw. xale bu ñu bu ñu ne dañ lay jàngal alxuraan ba deux h ah. nga nekk ci mbedd mi. mais mais maman wax ji neexul. wax ji neexul tey waaw comme dañuy liggéey nag foog ñu wax lépp mooy business la. Ah. mendicité dafa nekk business. kan mooy business. ak ak ak business bi ba fan la est-ce que sa dañu daaray kese. Ah, parce que comme dëkk bi da ngay compal ñu nga noppi. waaw xam nga est-ce que sëriñ yi dafa am ñu ñuy compal. wala wala parce que du ñëpp nag. waaw yaay yaay ma ma daaneel parce que. li may wax yaay may ma deux minutes dagguma la parce que xam nga li may wax ni euh, dafa nekk wax sujet bu graaw ëllëg mën nañ ma ci voilà kon dama bëgg rek daaneel wax ji euh, ñu soog a jaarale par ndax fii Sénégal la mooy am na ñoo xamante ni ay borom daar yu baax lañu waaw loolu kenn kenn wax kenn weddiw ko ndax Zeyda Zeyda Mariam Niass ku gis école am xam ni vraiment mu ngi jàngal xale yi ak ñeneen nag ñeneen ñooñu kenn taxul ñu wax ndax suñu doom yee fay dem di jàngi waaye nag ñi nga xamante ne ñoo jël xale yi buub la ñu nekk ci ay néeg duñu leen toppatoo ñoo fi ëpp ak ñi nga xamante ni vraiment la ñoo baax. dañuy loué dañuy loué. exactement. Euh, DJ Mansour bu nekkee mën nga ñëw tuuti rek ci loolu. DJ Malick euh, mm. gis nga mooy li ñu doon wax sànq rek. Sénégal dafa am lu bëri ñoo xam dañ lu bëri loo xam dañ ko bàyyi nit ñi def lu leen neex. Mm-hmm. sànq nee nga ñoo war a sanctionné mais xam nañ leen. c'est les gens qui représentent la loi police gendarmerie dañ leen fi teg pour ñu ñu ñu ñu kii ordre public bi donc ñoom su fekkee y a certains ci ñoom ñoo xam ne tey defuñu li nga xam moom moo leen war donc on aura un problème je reprends toujours l'exemple des États-Unis parce que je peux dire que j'ai grandi là-bas. foofu laa njëkk xamee xaalis foofu laa njëkk amee salaire soog a ñëw Sénégal. Mm. donc je suis entre foofu ak fii. mais li ma mën a wax mooy foofu mendicité boo ko defee mais dañ lay jàpp. dañ ko tere te Sénégal fii su ma juumul tere nañ ko mais xoolal tey benn benn benn sëriñ parce que lu maire wax sànq important tamit am na sëriñ ak sëriñ. Mm-hmm. sëñ Saliou gis nañ ko euh, mu yor xale yi mu yor leen yor yu rafet mais am na tamit ñoo xam ni. dañuy bëgg jël cinq 500 xale def leen ci benn kër. mais liggéeyuñu xëy ñu gontuñu. Mm-hmm. léegi les enfants sont obligés d'aller dans la rue joxe 500 le matin 500 le soir boo ko indiwul ñu dóor la torturer la. Mm. mais attends te te te loolu yëpp gouvernement bi du ci wax. xale yi dañuy dugg léegi ci biir kër yi taalibe yi boo gisee ñu bari bari léegi. Mm. Euh, boo gisee ñu bari bari yaay léegi da nga gis xale yi dañuy dugg taalibe du ñu nangoon sax sarax taalibe. Mm. ndax lan dañu naan dañu leen di euh, teg loo xamante ne mënuñu ko ba dañuy obligé dugg biir kër jàmbur bu ñu yarawaanee mayuñu leen. ñu fekk xaalisu jàmbur wala téléphone jàmbur jël ko. jaay ko ngir yóbbu seen sëriñ parce que suñ delloo tey indi ñu. dañ leen leen dóor mais aussi faut noter que aussi tamit yalwaan gi nekkatul xale yi kese maintenant li ñu wax business la boo xam ne c'est déguisé man par exemple damay génn parfois comme sur la route des Almadies wala quelque part. Mm. nga romb xale à 22h ou bien 23h 0h. nga gis xale mu taxaw di la yalwaar nga ne ko mm. yow ana sa yaay lu tax liggéey lu tax euh, tëddiwoo mën na la sama yaay mi ngay ci angle bëri si daguma la mais du xale yi kese aussi mag ñi tam ci la ñu bokk waaw dañuy nekk groupe dañuy nekk groupe muuru nga dugg fenn génn ñoom ñëpp ñu dàq ji la song la ba sa biir oto dina la ñaan xaalis mais loolu loolu du yàlwaan nañ mais dañ bu doon ñoom kese mu neex parce que mag sax mu débrouillé boppam mais dañuy jël xale yi waaw ak certaines heures d'accorduma ci yaay lan moo tax mais dem d'accorduma ci mhm. ndaxte xale dafa am heure boo xam dafa war a tëdd mhm. xale bu yeewoo nga jàngal ko alxuraan bu fekkee day jàng alxuraan bu yeewoo suba teel moment boobu bu ñu jullee fajar pare loo koy jàngal ci lay gën a jàpp mais après na nelaw reposer bu yeewoo yaay yelwaanu mbedd mi nag parce que jàngu alxuraan bi c'est très bien xam nga yelwaanu mbedd bi dañ ciy wax mais man damay bañ ñu focaliser wu ci wàllu ak indiscipline yaay suñu thème la de yaay thème bi thème bi thème bi dañuy ñëw mendicité ci la ci la bokk euh, euh, euh, sàcc alalu jàmbur ci la bokk ak ñi nga xamante ne ñooy gaare n'importe où et n'importe comment ba si te daye duñu mën a xam nga thème bi comme ni ngeen ko waxee vous jeunes mm-hmm. ku nekk da joxe sa xalaat xam nga ni benn képp kuy jur doom mm-hmm. nga xam jur ni mu mettee doo nga gis xale à certaines heures ci mbedd sedd bi ni mu mettee solul lu baax tilim tëdd ci mbedd mi xam nga ni kooku boo ko xoolee sa yaram na daw billaay yaay à chaque fois nga dégg oto bu bu gaare xale tëdd ci suuf borom camion ba ñëw di démarrer bu xam ni xale ngi ci suuf jurbel bi fi am na fi yàggul mu jaar ci kaw xale bi mardi taal dama ne la xam nga lu am ba des mooy nañ ñu jàppale nañ ñu jàppale nit ñi dañuy jàngale yor ay daara nañu téye xale yi am na certaines heures yoo xam ne xale yi dañoo war a nekk ci biir kër yi waru ñoo nekk ci mbedd mais xale bu nekk xale lan lay def ci mbedd ba vingt deux heures vingt trois heures benn affaire dafay dafay ñëw tout à l'heure on parlait d'indiscipline donc thème na boo xamante ne nii dafa large. Mm. moo tax xëy na tey mën nga laal mendicité mën nga laal leneen ak leneen ak mm. leneen. donc tey bu fekkee ni parents yi aussi amuñu éducation foofu éducation dafay ñëw mm. foofu. parce que tey si t'es pas bien éduqué mënoo éduquer sa doom. dëgg la ñàkk éduquer sa doom weesuwul tey nga ànd ak sa doom di ko bàyyi muy yelwaan kooku tey di il est à être xëy na maman ou bien à être papa. tey su demee ba màgg moom tamit mu am ay doom kooku tamit naka lay éduquer ay doomam ainsi de suite ainsi de suite yaa ngi fabriquer xëy na toute une population mais par exemple sànq euh, Eva dafa ne parents yi dañuy yar école bi yar mbedd bi yar mais yow mi sa bopp nag xam nga parent mën na yar école bi yar mbedd bi yar yow nga génn yàq loolu mooy am na nit ñoo xamante ne yàlla moo leen yaral seen bopp non non waaw yàlla mën na la yaral boppam mais yow tamit nga yaral nga yar sa bopp mhm. c'est très important loolu tamit benn plus bu âge la mhm. nit mën na yar boppam mais ci ah bu yeggee ci benn âge la non du metti sax parce que ñun ñëpp di nga toll benn âge boo xamante ni obligatoirement yaa yar sa bopp mais dafa am yaru daara am na mhm. yaru famille am na yaru école am na mais yar bu gis dafa am lu ko waral. mais juste pour ñëwaat léegi ci li ngeen di wax kenn du yar ba ñu dégg sanction bi ngay wax ndaak pour man dafa manqué ci Sénégal ndax da ngay gis fii dëkk boo xam ne dëkku def lu ma neex la se l'anarchie par conséquence chacun fait ce qu'il veut où il veut quand il veut avec qui il veut mm-hmm. te personne ne dit rien pourquoi parce que man Eva am naa tey ji benn mbokk boo xam ne tey bu ñu ma jàppee mu génne ma ci mm-hmm. mais bu fekkonte ne joxe nañu la bon exemple mm-hmm. kenn ku ñu jàpp nga def naka sudul noonu nga wàcc yoon une fois deux fois dootul troisième. ndax sa morom bu ko gisee du ko def. gis ni Eva damay rejoindre wax kii li mu wax sànq rek may ma tuuti rek. parce que dafa doon expliquer ne loi bi am na benn partie boo xamante ne dañ ne soo gisee nit wala nga jàpp nit muy def naka su dul noonu am nga droit téye ko foofu woote di ñëw ko si yoon. man sama papa. ci kaw nga am ay preuves. ay preuves gis na benn charité boo xamante ne dafa dem mais jël ay mbalitam kenn xamul fan la ko jëlee ay xeer yu kenn xamul ñëw ba ci digg koñ bi di ko fa këpp mais ko téye sa pap dafa bëri histoire moom daf ko téye ne ko doo fi jógee di nga ramassé waat sa biir charette lépp yóbbu ko tuur ko sa xaj nit nit ay la ah. ko mu baas ko na day xew waaw mais nit ñi war a jàll ci mbedd moom yor seen wala jàll. yaa ñii laabe oto ci mbedd nag ñii laabe oto ci mbedd nag. foofu yëpp tooy est-ce que loolu bokk mu sa dëkkandoo mu jël béton sotti ko ci koñ bi nga bëgg a gaare am foo jaar ou bien suuf géej mais quand même nga sóoraale xam ne kii dëkk sa dëkkandoo la <clears throat> mais sóoraale sa dëkkandoo. bu dul dara sax question dafa am loo xam ne xel ci boppam moom moo ko war a mm. xalaat kii li muy wax aux États-Unis mais foofu dañoo dañoo dañoo sargal handicapé mm-hmm. mais da ngay gis bus bi day taxaw mais chauffeur bi mooy wàcc mm-hmm. yéegal handicapé bi mu mm-hmm. yéeg mu doog a yéeg dawal and ci fi muy toog yow mi nga xam ne da nga normal doo fa toog xanaa bus bi dem ba fees waaw dégg yaa ngi dégg ñeme woo lekk sa xol banaana sànd ko ci mbedd mi ñeme woo feu rouge bi rouge nga ñëw naan yaa ngi dof dof te ñun c'est quoi la différence mais mère li nga wax noonu euh, am na euh, sargal handicapé fii Sénégal damay toog ba mu yàgg ma ne mais man je vois des passerelles damay gis bus yi ñu ngi daw normalement ak yëpp car bon car rapide c'est autre chose mais bus DDD c'est l'état euh, passerelle yi et tout dama koy gis mais dama naan tey ku amoon chaise roulante nan lay def pour jaar ci passerelle merci beaucoup kenn xel. waaw léegi tey tey koo xam ne dafa war dugg ci bus yor chaise roulante nan lay def pour dugg. tuuraale mm. wuñ leen sans pour autant chauffeur bi jóg fu mu toog. encore une fois ma ñëwaat ci sama mbokk américain yi. handicapé bu taxawee bus bi taxaw ñu gis ni kii mi ngi ci arrêt bi ci ah, handicapé mi ngi ci arrêt bi mm. kenn du dugg mooy. ñëpp dugg nan lay duggee. bus bi dañ ko préparé loo xam ne bu ñëwee rek di benn fer la boo xam ne day débloqué ñëw ba ci. trottoir bi mu yéeg ndànk chauffeur bi taxal ko ceinture ci chaise am lay toog chaise boobu bu fekkoon dafa am ñi fa toog dañ koy yëkkati moom mu toog parce que dañ leen sóoraale ci biir bus yi pour waxaat tuuti ci affaire indiscipline yooyu mais ci biir bus yi dañ sóoraale ay ay sachet yoo xam ni ku lekk da koy sànni foofu allah su feesee chauffeur bi vidé ko très bien léegi ma ma recadré waa tuuti rek parce que kuy soog a yegg si mu dégg indiscipline dégg leen te mu ne ñii li ñuy wax dafa def fekk sànq dañoo ubbee émission bi ak dëkk bu indiscipliné du mën a jëm kanam te xam nga ni yalwaan du ma ne sax dafa bokk ci ci ci ci euh, genre indiscipline la mais jël genre torture la ci xale yi kon mun nañ jàpp tuuti indiscipline wala du indiscipline muy benn dama bëgg yow euh, DJ nga daal di ma koy tënkal muy benn lan moo tax kenn ñemewul ci yalwaan plateau bi sax xaw na sedd boo nee yalwaan kenn xuusu ci lan moo waral loolu sëriñ si la wala dañoo dañoo je sais pas avant muy wax lan moo tax temu mu yalwaan parce que mën nañ koo gën a élargir waaw waaw déjà état bi oh. interdiroon na ko mm-hmm. mais problème état au Sénégal bugguma cee wéet day commencer <laughs> du am jamais suivi mm-hmm. on va dire la vérité loolu moo fi am mm-hmm. chaque fois il sort des lois commencé au début nga gis policier yëpp wàcc ci mbedd bi ku ñuy xale yi da ngay mm. guddi gi sax gis ñuy daw. Mm. parce que oto oto gendarme ba ngi ñëw mi ngi noonu. projet de loi boobu noonu amul dañuy voté seen projet de loi mm. teg ko appliqué commencé au début mais du am jamais fin. il faut que nag état bi redoubler d'effort. Mm-hmm. ñi nga xamante ni loolu mooy. les citoyens c'est très bien desal ci foofu mais et les citoyens est-ce que ñun ay xar lañu. wala ay moto ay fas lañu ba chaque jour ñuy topp di ñu di ñu di ñu di ñu yee di ñu yee. xam nga léegi léegi dama wax benn benn wax dama ni mag di nga toll benn stade boo xamante ni du école ba du yaay du kenn yow yaay yar sa bopp. Mhm. yow yaay doon sa magu bopp. yow yaay xool li gën li baax nga ni lii laay jël pour jëriñoo ko bu dee. dëgg la nga am mujj gu rafet. dëgg la mais loo gis ci àdduna choix la que ça soit yow wala man mm-hmm. xam nga tey jii bu ñu demee ba décider man ma décidé ne tey jii dama bëgg jàng li damay jël lépp tous les précautions yi nga xam moo ko laaj pour jàng ko mm-hmm. c'est parce que du sama yaay du sama papa du kenn man maa bëgg avancer moo tax donc citoyens yooyu ngay wax muy parents yi muy doom yi muy xale yi kum ci mën ci doon mm-hmm. ñoom jàngal nañ leen li leen war a jàngal xam nañu li leen war donc bu ñu demee ba def lu leen neex c'est parce que dañ ko def consciemment ah maa tay la ok ah, xam waral maa tay parce que amul sanction bi war d'accord euh, Eva xam nga tey par exemple si on parle des enfants de la rue. par mhm. exemple de mendicité en général. parce que au Sénégal quand on parle de mendicité dañu wax les les enfants talibés. Mhm. wala boog xale yi nga xam ne ñu ngi nekk ci mbedd mi et tout mhm. man je commencer d'abord par euh, donner li nga xamante ne moom mooy tort bi à certains parents. parce que aussi foofu fuite de responsabilité dafay am. parce que mère Dia wax na ko léegi mënoo jur sa doom ak doom jur ni mu mettee ak euh, ak doom ni mu saxee ci xol nga jël ko <coughs> yóbbu ko ci benn daara boo xamante ne tey leer na ne que tey ay conditions yu précaires lay dund tey du tëdd fu baax du lekk euh, du lekk lu baax lu mu lekk day dem yalwaani ko wala boog dañ koy torturer pour mu indi pour mu andi dund ci biir mm. fi nga xam ne mooy daara ñëpp di ñëpp di seetaan tout le peuple est témoin très bien yow tam waaw bébé dogguma la yaa ngi wax ci mm. ki nga xam ne muy suñu gouvernement bi mm. moom mi war a dimbali ki yor daara yor ay taalibe mm-hmm. mu war koo dimbali ba ay taalibam di njëlwaani waaye dimbali wu ko waaw jël milliard boobu yaay xam nga yaay xam nga loo gis loo gis yaay tëgguma kan moo ko wax mu dajale ay xale waaw kenn noonu c'est ko kan moo ko wax kan jël kër baal ma de kan moo ko wax mu jël kër def ci cent xale ne da leen di yar te mm-hmm. amoo mm-hmm. mais yow parents say doom man du ma jël sama doom di ko dugal daara war a ka jur doomam ka jur doomam yarul ko boppam xanaa jële ko ca àll ba ñëw andi ko sëriñ bi mais sëriñ bi amul lu mu ko dundalee tax nga koy jël kon dañu ñëw ne ko jàngal ko alxuraan jàngal ma ko diine mais moom sëriñ bi amul sax lu mu dundee woykat bi woy na ko danga nit

loolu loolu je pense que je pense que am na am na solo te moom mendicité je pense que dafa nekk sax lu gën a graaw mais ñu des ci ci ci euh, maanaam ci euh, pàkk bi mooy juste côté indiscipline parce que c'est interdit te lépp lu ñu aaye nga koy def mën nañ jàpp ni indiscipline la léegi nag ñu wàccaat parce que euh, je pense que di DJ Malick premier pàcc bi léegi mu jeex mooy occupation des voies publique lan moo tax sama genre gi fu leen neex gaare booy dox ñu naan la maanaam ak klaxonné guddi gi lavage bi ak ñiy liggéey guddi waaw ñii ma yeggale ñiy liggéey ñiy liggéey ñiy liggéey n'importe quelle heure mm-hmm. ñiy tabax n'importe quelle heure ak ak kii nu mu tuddati métallique bi métallique bi ah dimanche nit ñi di noppalu yow nga ñëw teg ne da liggéey mm-hmm. est-ce que damay liggéey damay liggéey boobu ba ci marchand ambulant yi ba ci carapiti yi ba ci sama genre gi parce que ñun ñëpp nañ wax dafa ñu maanaam on ne stigmatise personne Mm-hmm. parce que je pense que maalu Sénégal euh, c'est les c'est léegi am na lu ñu lim dama bëggoon nga tënkal ma ko rek balaa ñuy defaat beneen tour de table. xam nga boo nee boo nee guddi moom lépp lu passé benn certaine la lépp lu weesu loolu bëccëg. Mm-hmm. yow ngay dagg sa weñ te sa voix.